bi yàlla dogalee itam mu woote ne jox leen ma ndaw ñi ma def ca ñoom la Serigne Touba doon def ca mag ñi waaye donte yeyowuma ko man Serigne Saliou Mbacke danaa ko barkeeloo. sëñ Assane loolu lool na waar lool. waxi sëñ Touba jala. doy na waar lool. le 13 mai. 90. Hmm. Hmm. la Serigne Saliou jot xilaafa gi. Hmm. bésub dibiir atum yatasin atum junni ak ñeenti téeméer fukk. ci gàddaay gi. nee na mu tombeek mu am 75 ans. 75 ans ci ati sëñ Tuubaa ya yi sëñ Tuubaa dund baayam. Mm. at yooyu la Serigne Saliou am. Mm. doo ko jot xilaafa gi. loolu doy na waar. bi mu ko jotee nag la wax waxam juróomi jooju. Mm. jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Serigne Touba doon def ca mag ña donte yooyowuma ko man Serigne Saliou Mbacke danaa ko barkeeloo. Seesan kon foofu dañ fay jaaree. Mm-hmm. dugg ci benn wax ji nga xam te ni wax ju siw la lool. te ñëpp nangu ko te mu bëri ci ñi nga xam ne sax dañ koy wax taxamuñu wareef gi muy Serigne Saliou mooy Serigne waa ah di seesan nga baal ma. Mhm. muy wax ju wér. Mhm. xëy na bëri naa ci maas nga xam te ne dañ koy wax te dalil nga xaw leen sori. Mhm. kon seesan ñu lay laaj yan misaal rek nga ñu jox yu ndaw ndax melo yi wane ni Serigne Saliou mooy Serigne Touba yu bari la. waaye yan rek nga ñuy jox yu ndaw yi nga xam te ne firnde la. waaw xam nga may sëñ Tuubaa moom. <laughs> li may wax ne waaw kongu mënta maanaam may sëñ Tuubaa moom. fi la lépp fi la woo mënta waaw kongu <laughs> te may sëñ Tuubaa moom kenn mënatu ko weesu. wér na. man ma mais ki ma nettali. Mm. ca ca magi donga la. Mm. nee na leen Serigne Saliou mas na leen a wax ne war ngeen a sant yàlla de. Mm. ndax képp kuy liggéeyal sëñ Touba. képp kuy liggéeyal Serigne tubaa ba nekk ak moom sama xel war naa dal. xanaa mënees na cee jamtal ne sëñ Saliou kon mooy sëñ Touba. taboo ko waxal boppam. Touba Belel daaray Touba Belel ca Xelkom daaray numéro 4 man fa ne newoon bés bi mu fiy mujj 2004. keroog ba mu wàccee ci oto bi boot loxoom yu tëdd ya dañuy Alaaji bu sa malaaka mu ne ko mbàkki neel dongay Serigne Touba ñëw na egsi na. daal di toog yow daal di ne sàllaafu day Xelkom daa ëpp daa ëpp gëj ndax ñu toppoon sëñ Touba ngi fi. <laughs> mënees na cee sukkandiku. ba tey wax ni mooy Serigne Touba ndax moo ne Serigne Touba ñëw na. ñetteel bi Cheikh Abdou Khader Mbacke ci boppam. 89 na daaray njurul 88. Serigne Saliou ganale ko mu wàcc ci oto bi dal ci biir juróom-benn néegub juróom-benn koñ bi. Cheikh Abdou euh, Abo Gueye nee na ma man la Serigne Saliou Mbacke jox ndigal may wargaa Cheikh Abdou Khader. ma koy war gaal ba mu yàgg mu ne ma sëñ Saliou mbaa géejul njaarim hmm. ma ne ko waxee ah, kay géej ña fa di mu ah, waru fay géej hmm. melaw sëñ Tuubaa doon dund njaarim hmm. keroog ba sëñ Tuubaa làqoo lañ géej gis melaw wa waaye sëriñ Saliou saa bu ñëwee melaw sëñ Tuubaa wa dégg si Abo nee na maa ni Cheikh Abdou Khadre ba xam ma wax ko damaa joxoñ ne ma mat naa wax de keroog ba mu ko waxee sëñ Saliou da koo sànni bitéelub parfum kon doon gi doon sëñ Tuubaa wane ne ko ci loolu bare baree bari maay sëñ Tuubaa ak kuy liggéey sëñ Tuubaa sam xel war na kuy liggéey sëñ Tuubaa ba nekk ak moom sam xel war naa dal mënees na ca jox missaal yu bare bare bare bare bari sëñ màggat waaye waxtu wee xat waaye jamtal nañ ñi dégg naa ci mag mu baax gis na sëñ Tuubaa dégg na kàddoom itam mage na lool ndax mës naa dégg ne sëñ Tuubaa nee na danaa ñëwaat jamono ba yàlla dogalee mu jóge njaareem doon mag mu mage lool ñu wàcce ko dugal ko ci kees gi sëñ Saaliw ku fonkoon mag mu gis sëñ Tuubaa la mag mi bi mu nekkee ci kees gi kees maanaam kees gi sës ci kees gi sëñ sëñ Saliou nekk. keroog bi mu déggee kàddug sëñ Saliou daa yuuxu. mag ñi ne ko lan la lan la mu ne kàddu gii laa déggoon njariñ. keroog ba mu duggee ci kees gi ne jàkk sëñ Saliou daa yuuxu ñu ne ko lan la mu ne ko xar kanam gii laa doon gis njariñ. kon mboolem ña mas a gis sëñ ba te muy dëgg jàkkaarloo xar kanamam ba. jàpp nañ ni képp ku ma képp ku gis sëñ Saliou kanamu sëñ Touba googee ak kàddum googee radiyallahu taala dara du la ci wuute kooku daal sëriñ màggat jarut sonn mooy sëriñ Tuubaa ju sotti. maanaam dafa am wax ji li nga xam ni mës nañ dégg benn xisa ko firndeel. Mhm. ñu ni bi fi sëriñ bi jógee ci Zahir. Mhm. maam Cheikh dafa toog ba si àgg ni un ah, xeeti sëñ Bamba mooy xeeñ. Mhm. nee na ñu toog ba si àgg gis sëñ Moussa ànd ak benn tuut tànk mu laaj ko ni ko kii kana mu ni ko kii Saliou doomi sëñ Bamba. nee mu yanu yëgadi nga ni a ah, wax ngeen dëgg doomi sëñ Bamba diis na gan. Mhm. ci ku ni aw ma doom. Mhm. loolu loolu misaal mi ma la ciy jox. Mhm. gisee ga ci xuru Mbàkke la. kër Cheikh Ibrahima Fall ga ca xuru Mbàkke. fa lii xewee woon. sëñ Saliou daan na wax ni sunu waajur wa daan nañu aaye ñuy dem kër baay Cheikh Ibra. ndax ku xam dara jëy Cheikh Ibra te bu ma saan gis doomu sëñ Tuubaa wàcc toog gi. sëñ bi daan na leen ko bañal ba daan na leen fa aaye. nee na li tax ma daan wax Cheikh Ibra Baye mhm. damaa dem kër Cheikh siyaare ji ko. Mhm. may dem mu ëmbal ma addiya ju bari jël fas bu boppam daal ne nañ ko ci teg wammatal ko ko jëm ak moom kër gu mag. Mhm. sëñ Saliou nee na bi ma ñëwee jub kër gi daal ne wàcci leen ma fii ndax saa bàyyi da daa aaye ñu di dem. keroog nee na bi mu ne tëll ci kees gi daal dajeg ku baax ki mu ne ko Saliou foo jóge mën a teg. mu ne ko Saliou foo jóge mën a teg mu ne ko sa bët yi damay niru ko jóge kër Baye Cheikh ma Fall <laughs> sëñ Saliou nee na keroog laa xam ne jëmmi Cheikh Ibrahima Baye la mhm. ndax ci sa ndax ci sëñ laa déggee mu ne Baye Cheikh Ibrahima ñaareelu gise gi nee ne xuru mbàkki la mhm. yàlla dogal na sëriñ Saliou nee damaa ñëw di ko siyaare si mhm. keroog genn mag ci mag ñi moo ko yëglul mu ne ko am na jàll si am satu si ne mi ma nettali nee na sëriñ Saliou nee na ko bi Cheikh Ibra taxawee daan na de na jàll si mboolem looy làccu kees ci kër gi. Hmm. jëmmi Cheikh Ibra la sut. daan ne xëy wax na dëgg de na jàll si. yaaram mbay mu ne ko faal mu ne ko gàttandu leen ko ba mu jaar ci bunt kees gum tollal baat leen kees gi ma jàll. amsatu si la nee na ma Serigne Saliou nee na ko. Hmm. nee na ko sallahu dey booba sax jaaruma ci bunt damay ñëw ba tàllak ak laajub kees ñu baat ko ma jàll. sàkket. Hmm. نجي جاكارلوك باي سيخبر بيم نكو تشاس دكو تفكير دنم ورق موم داري كوني يارم باي منكو فال منكو خدجي ما سرين سالي وري خين موي خدجي ما سرين توبا دون خين بما يكيسيك موم نعرفو كيفان كيو يارو كور داري كوني يارم باي منكو فال منكو منكو منكو دنم سرين سالي بي موي سكر بامملوك غاي باخي داري كوني يارم باي منكو فال منكو سابرم خمال نماني بما جلاتي سرين سالي تاكو چي سمدن بولم لنكو سمدن نانكو خلي كون سيخ بلاي مفال confirmé ne xet gi ko Serigne Saliou di xeeñ mooy xet goo ko Serigne Touba doon xeeñ kooku mënees na cee sukkandiku ne Serigne Saliou Mbacke radiyallahu taala anhu mooy Serigne Touba Khadim Rasoul Serigne Maguette. Cheikh Assane naka ngay dundee Serigne Saliou ak yërmande. yërmande gi moom. daa jéggi woon dayoo. koo xam ne bu masaan a gis piccum ramatu muy ah, bu gis masaan a gis. Mm-hmm. gone guy dox ciw naaj te soluti dal la ay rongoñam sotti bu masaana gis ku tok roy melentan sax ay rongo ñu serigne sayu da dan touru hmm. da na wax ni sallahu day sun borom mënoon na la koo def ni mom mu def comme nit te bu la defon ni dula neex hmm. ba mbollem yi dan jotay ak mi non nañ ndoxum beutem lim dan lim dan tour ay ndoxu beut hmm. da bari won lolé da daan ndigi da dayo serigne kan mo mas a wax ni kudul yalla mi sak jamni ñi ëppoo ma ci jaam doy war lu doy war kudul yalla doy na ëpp ma ci jàmm yërmande. doy na waar yërmande gi rek doy na sëñ Tuubaa boole na ma ak yéen du dem bàyyi leen. su ma leen gisatul danaa leen nekk su ma leen négee ñëwoo leen dama damay wàññeeku jiit leen teeg yéen di leen niital ba ca kanamu Cheikhul Khadim waaye duma ma taqale ko yéen benn yoon. Mm-hmm. kon nag borom yërmande mooy sëñ Saliou. Mm-hmm. ndax ma waxoon ci làmmiñam ne ku dul yàlla mi sàkk jaam ñi ëppoo ma ci jaam ñi yërmande radiyallahu taala anhu moom Serigne Saliou. man dafa am benn seetlu gu ndaw gu ma def Serigne Saliou doon gi mu doon yonent bi sallallahu man ma am ci lu muy yàlla dafa waxoon yonent bi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina yow yonent bi dama la bind nga nekk yërmande mbindeef hmm. Serigne Saliou ñëw firndeel loolu hmm. mu amaat beneen Muhammad tur gi boo ko addadee mu jàpp 92 Serigne Saliou ñooy dund 92 ans hmm. te sëriñ Serigne Touba waxoon ni yonent bi dafa ni ma yow Sëñ Tuubaa lu la neex neex na ma lu ma neex neex na la. Hmm. kon Serigne Saliou ñëw doon Sëñ Tuubaa ci loolu mu jaaraale fa doon yonent bi. loolu. nga wax lu doy waar la. Uh-huh. ndax doy doy doy gim doy waar. Uh-huh. mooy li wax ni. kataballaahu tabaaraka wa taala uh-huh. anna baytillaahi araam waaye tarfa u malaikatu ila tuuba lan moo indi yonent bi ak saaba ya ñëw mooy demuk Serigne Saliou. 92 la dund boo ko addatee lay jox Muhammad. te Sëñ Tuubaa moo ne woon fiihi rasulillahi sallallahu alayhi wa kon yonent bi dañuy ñëw Touba. ñëw na sallaw. ku baax damaa wax ni àllarba. tëdd naa ca Touba gént. ñu ne ma yonent bi ñibbisi na Touba. waaye sagam bi ma yeewoo. ñu ma toogal ñëpp di ay tuttànk mënuma leen ko wax waaye barab bañ ne ma fa la yonent bi wàcc ci jumaa ji. ba ma demee gisuma fa dara. àllarba la ko la ko la ko gént. alxamis ci guddi. mu géntaat ñu ne ko jugal diw ndax yonent bi ñibbi seen Tuuba. fenêtre am ba mu ubbi ñoom njëkk seen dañoo yooxu ne sëriñ Saliou dem na. Hmm. ba mu àndeek ñoom ba ñëw ci jumaa ji fa mu géntoon ñu ne ko yonent bi fii lay wàcc. fala fekk ñu daaneel ñu daajal fa Seex Saalihu Mbàkke barak ba mm-hmm. kon la Sëriñ Tubaa waxoon ni yonent bi lu ma neex neex na ko mm-hmm. te dana jóge Makka ànd ak saaba ya ñëw Tuubaa demu Sëriñ Saalihu Mbàkke koo ne mm-hmm. at yemu dund mooy ati baayam. 92 hmm. an la dund téeméeri at yu manqué juróom-ñetti at boo ko adatee Muhammad. Hmm. kon li mu dund ci ay at mooy lim nga sëñ Touba waxoon ne yonent bi dana ñëw Touba. Hmm. radiyallahu taala anhu moom sëriñ Sane. li gisee seen mu am ñoo ngi ci mujjantalu émission bi. li nga da sànq da da nga wax benn wax yi nga xam te ni ni Serigne Saliou ñaanu sëñ Touba gi nangu la. te Serigne Touba xëy na ca Nour Daarin ma ngi wax naan. wa habli al ilma saxiixa wa amal. asaalih alladi yukammil amal mm-hmm. Mm-hmm. léegi annonce gi mu ko annoncé la moo tax Serigne Saliou Serigne Touba mënoon na utiliser beneen tur yàlla bu du saalih mm-hmm. waaye kon saalih ga mu utiliser ni saalih mooy kon léegi Serigne bi moom waxoon na xanaa boo seetloo rek ni Serigne Saliou mooy mottali lépp te moo ne Serigne Saliou euh, moom ak Serigne Mourala la kon dafa waxoon naan Serigne Saliou mooy mottali beneen doomi Serigne Touba mënta woon toog ci gannaaw Serigne Saliou déedéet ndax loolu ndax loolu misaal misaal na ko ci lu bari. sëñ Tuubaa nee na bi ma liggéeyee yàlla. ba liggéey bi sotti. ba ma ñëw njaarim toog yàlla di ma fay. Seydina Jibril damaa mës a gane si. ne ma Ahmadu ma ne ko Mbàkke mu ne ma saa borom nee na nga ñëw nemmeeku dëkkuwaay yam la dëkk yam la defaral ci àjjana. ma ne Seydina Jibril man day mënumaa dem. wa ilaa boog su may dem faw nga néeg ma. sëriñ bi nee bi may wër. pàkk ya di wër ba àgg ci bunt boo xam ne bi ma ko dee tijji dañ maa téye ma ne ah nit noo koy booyalee ci kër ba noppi di ko utal foron di ko di ko utal fenn frontière mu ne ko xoolal liñ bind ci bunt bi nee na mu xool ñu bind ci bunt àjjana joojee fii ku bëggalul xale doo fi tàbbi ku bëggalul xale hmm. doo fi dugg hmm. nee na ma ne laajal ma ko saa borom ba xam mu laaj ko saa borom mu ne ko wax ah, kay maa ko bindoon ba noppi boole laak tubaab yi ñuy dox sa digg bégal gone yi bégal leen nag ba loolu tijjeeku Cheikh Abdou Samad mu Serigne Soy bu nee na keroog maa ne sëriñ Saliou xanaa loolu la la Serigne Touba rafaatale <laughs> bayit bii nga wax léegi ci nuuru daari nii. Cheikh mm. Abdou Samad nee laaj naa ko sëriñ Saliou ba xam yow la ci sëñ tubaa jublu mu ne ko bu ma ci jublu tam yàlla ma ko sarax <laughs> wa ilaa fu bayit bi nekk naa xitma ji ba moomale ko sama bopp. mu doon bu ko sol mu cëkk la waaye yow boo ko solee mu yem ci yow keroog Serigne Saliou daa daanu jël. pour wax la ni mboolem mébéti sëñ tubaay itam. Mhm. taxawoon na naal ko maa ngi lay wax fii léegi ne la Cheikh Mourtala bi mu làqoo ba ba ba ba weer mhm. dajale na mbagi dong yëpp daal ne dem leen ci daara yi ne leen dong yi nañ ma ñaanal. Mhm. dem naa ba jàpp ne mënatuma dund ci ji jamono. dem ba ku ma bokkal bàyyi gisatuma ko jamono ju metti ci man la. waaye ñaanal leen ma ndax dem naa ba xam ne xar baax sëñ Tuubaa la kon moom bàyyi woon na xel ne moom sëñ saaliw ne moom mooy mottali ab liggéeyam sëriñ soxna May mu sëñ Tuubaa wax na ko ko. da ko ne Saliou mu ne ko Mbàkke mu ne ko képp kuy defit képp koo fi jamonanteel ngeen bokk bàyyi liggéey bi da ciy sof waaye yow la sëñ Tuubaa àggale loo liggéey bi. kon nag àggale na ab liggéeyam ci diine ji àggale na liggéeyam ci yoon wi.